ci bir coow nonu euh, avec élection législative yow démb da nga ni da nga ci dug te da ngay ànd ak benn coalition biñ wax ar Sénégal lan moko ko wund ah, yow waaw euh, ñom lay jappalé man duma candidat mom mm-hmm. parce que man ma maa jëlee sama bop fu assemblée nationale te suma sumu yéné delu en tout cas pas pour le moment euh li tax ma jappalé ar yar yëpp rek la d'abord xamna li leen ña ko seen personnalité xamna naa ay nit ñu jup ay nit ñu jang ay yi xam-xam yo xamne japp na ne ku leen jappale suñu amé ndam assemblée nationale xar kanam ba dana soppi ko bii des pour le moment ñom rek ñoo fi génne gun programme ne buñ démé assemblée nationale li lañ bëgg dox malheureusement benno bokk yaakar mom limi wax bilan Macky Sall la bëgg def programme pour élection yi <laughs> yeewee askan wi xëblé ak xulli ak tëgg kasserol mm. yoy duñ programme motax pour le moment limay ñaan Sénégal yépp rek vraiment la di leen ko mooy la meilleure liste boo xam ne bu demee assemblée ah, nationale bul propagande non non dinañ amal njëriñ réew mi bul propagande mooy aar Sénégal bul propagande ah, déet yaa ma ko yaa ma ko non dama laa posé mm, mm. xam naa jàngoro yi nationale mm-hmm. xam nga su waalee ma dégg kuy xas député naan député député député député yi amuñu benn problème assemblée nationale ci moom ni ñu ko organisé 1962 ak léegi ñi fi nekk président bi yi fi nekk dañoo bëgg jël assemblée def ko ci seen poos mu di leen wote seen loi yem ca assemblée nationale loolu moo ko dafa néew doole parce que même même lu mel ne euh, euh, nga xam ne liggéey bi gën a rëy ci liggéeyam la muy contrôler l'action du gouvernement. Mm-hmm. ak évaluer des politiques publiques mais assemblée nationale am jumtukaay yu mu ko defee tey boo demee mel ne France la cour la la cour des comptes elle est placée sous l'autorité du président de l'assemblée nationale su bëggee évaluer les politiques publiques ñoom la koy sant parce que bu demee xam-xam nga fa. Mhm. su bëggee contrôler l'action du gouvernement ñoom la koy sant. ma jàpp ne Sénégal lu mel noonu dañ ko war def mooy lan jël cour des comptes teg ko fii IGE ñu génne ko président de la République commission nationale d'évaluation des politiques publiques bi nekk président ñu génne ko parce que xam nga dama di ko wax. Mhm. président de la République ci constitution bi amul fu ñu ko joxee sañ-sañ. muy contrôler l'action du gouvernement wala muy évaluer les politiques publiques loolu assemblée nationale la ko constitution bi ma jàpp ne bu ñu boole woon IGE ak commission nationale de de de l'évaluation des politiques publiques Avec la cour des comptes y a une structure bu est ay borom xam-xam nekk ñu jox ko nationale su boobaa assemblée nationale de contrôler l'action du gouvernement L'Assemblée nationale évalue évaluer les politiques publiques et malheureusement depuis 1962 c'est l'assemblée nationale amul jumtuwaay yu ko defee loolu du député nous au baaxul mais l'Assemblée nationale moo amul jumtuwaay parce que le président de la République président de la c'est une institution il a tous les il a des ministres il a il a l'administration il a 150 000 fonctionnaires ñu di ko appelé. assemblée nationale député il moom alors que ce n'est pas même le député qui contrôle l'action du gouvernement, ce n'est pas le député qui évalue le politique, c'est les commissions du, de l'Assemblée nationale. Soit les commissions permanentes ou les commissions euh, provisoires, euh, on créer, mais pour, pour, pour, pour nous dépliquer, il faut que nous ayons faire. Et malheureusement, l'Assemblée nationale a des problèmes pour appeler les députés qui sont liés. Quand encore une fois, il y a des députés pour xëy na dem assemblée nga waaye bu ñu demee daañu xam ne ab député du député moo am problème ci assemblée. mais yéen au cours au cours bi nga xam ne jot ngaa nekk président groupe parlementaire assemblée nationale est-ce que amoon ngeen ay difficultés pour convoquer des ministres ndax su ñu gisee par exemple gars yi dañuy wax yenn ministres yi ñu dégg leen ci yenn coow yi bu ngeen leen convoquer pour à ce que ngeen def benn enquête euh, yenn difficulté ngeen da ci doon bon euh, bëriwul lu ñu ko defee ah bëriwul bëriwul lu ñu ko mm-hmm. def euh, fàttaligu ma sax ay ministres yu yu ñu yu ñu convoqué lu ñu ko def. Euh, bëriwul luñ ko def. lan mooy problème bi boo xool boo xoolee ñun ban bi mu ñuy assemblée. damaa ñëw fekk fa benn benn étude boo xam ne Union européenne moo ko financé loon assemblée ñu dajale ci lépp luy problème mu assemblée ak des propositions concrètes ma xool ko gëstu ko man ak sama ñi ma bokkaloon benn xam ne gaa document bi nañ ko jël trans def euh, euh, pour réformer l' assemblée nationale ñëpp d' accord ma saisir président Moustapha Niass ne ko dama bëggoon daal ñu organiser des séminaires ñu recruter borom xam-xam ñu jappalé ñu document bi nga xam ne union européenne moo moo ko financer ñu xol naka lañ ko mëna jëriño pour défar pour mëna sans changer kanu assemblée nationale mu ne ma amu xaaliss ma ne ko du problème ma dem and ak Mohamed Mbodj bi faatu yalla ko yalla yërëm bu forum civil ñu dem Osiwa Osiwa financer nu quatre séminaires fayal nu même ay ay ay consultants ñu liggéey texte liggéey ba liggéey règlement intérieur bu bees boole ko 200 recommandations 200 recommandations yoo xam ne bu ñu ko doxaloon depuis 2013 na nga ni fekk na xar kanu assemblée nationale sama gannaaw dem ne président Moustapha Niass Moustapha Diakhaté daf la bëgg a bëgg sa place daa bëgg doo a yor assemblée coow li commencé bari président Macky Sall naaw Niass c'est un allié mu woo ma ne ma on mais bon documents yi ña ngi fa les le nouveau réglementaire bi ñu élaboré woon ma nga fa les deux cent recommandations ma nga fa je crois que xëy na bu ñoom aar gagné majorité bi daañ ko mën a